إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وفي البداية أيها الأحباب أهنئكم بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة أعاده الله على أمتنا الإسلامية بنصر معزر على أعضائها أعاده الله علينا بعود حميد لمنهج الله ولكتابه نتدبره بروح مستسلمه لأوامر الله ورغبة صادقة في صياغة حياتنا وفق المنهج الإلهي أعاده الله بعود لا رجعة فيه لاقتفاء أثر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نهتدي بهديه ونقتدي بسنته ونتخلق بخلقه العظيم أعاده الله علينا بعود إلى ذلك الجيل الناظر من هذه الكوكب من الصحابة التي أداءت حياتها الحياة الإنسانية وارتقت بها لم تبلغ من قبل ولم تبلغها إلا إذا تكرر هذا الجيل مرة أخرى أعاده الله وقد نصرنا الله باتباع منهجه وتطبيق شرعه القويم لنستحق النصر ونستحق الخير التي ذكرها الله في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم وأكثرهم الفاسقون أعاده الله وقد ارتفعت راية الإسلام خفاقة كما كانت وعادت للمسلمين مجدهم وعزهم وكرامتهم أعاده الله وقد تحررت فلسطين وتطهرت من دنس اليهود الغاصبين وعاد إلينا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala di julli ci sangu-sang yi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam njëkk ñu ngi leen di ndokkeel ci feetu tabaski bu barkeel bii ñoo ngi ñaan buur yàlla subhaanahu wa taala mu dellu si ko sunu kaw ci yiw ak xéewal ak barke yàlla delloo si waat ko ci sunu xeet xeet wi nga xam ne mooy xeetu lislaam waaye keroog bu ko yàlla di delloo si waat fekk ñu koy fekk yàlla na fekk mu ànd ak ndimbalam bu nu noot ay noonam yàlla na ko yàlla delloo si waat sunu kaw ñu fekke ko waaye fekk keroog bi ko yàlla di delloosi mu nu fekk ci réew mi ñuy dund laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñu ngi teg sunu tànk ci alquran ak sunna ñu ngi jébbulul yàlla ci bépp mbir bu mu ñu sant waaye ñu ngi ko jébbalul nangul ko ci bépp mbir boo xam ne moom yàlla subhanahu wa taala tere nañ ko yal na ko yàlla delloosi ci sunu kaw bis boobu mu koy delloosi waat na fekk kenn ku nekk ci ñun ci réew mi yaa ngi njaganaayoo yaa ngi ngànnaayoo di xeeñtu taraasi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jéem a jub ci njubam nga jéem koo roy comme ni ko borom bi subhanahu wa taala santaane waaye nga jéem a jikko woo jikko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla delloo si sunu kaw bis bu mu koy delloo si na fekk réew mi xeet wi ñoom ñëpp ñu ngi ànd jéem a mel ni xeet wu njëkk wa meloon mooy jiilul awal assahaaba muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne tey kenn kenn mënatul góorgóorlu ba dab leen ndax jiitu nannu te lañ ñu jiitoo fas mënu koo daw avion mënu koo naaw kenn mënu koo xëlu lu tax ndax ba yàlla wootee ñoom ñoo wuy ji woon ñoom diis diis lu wuñu ci kaw suuf ñoom bagage yi àdduna téyewu leen yàlla dafa woote rek yaa qawmana ajibu daa'i allahi ñoom ñëpp ñu foog wuy ji wootekatu yàlla bi subhanahu wa taala yal na ko yàlla delloo si sunu kaw waaye bis bu ko yàlla di delloo si waat na fekk xeet wi ñoom ñoom ñoo ngi ànd dëppoo di dund sunna yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di dund sharia yàlla bi subhanahu wa taala comme ni leen ko yàlla subhanahu wa taala diggee woon ci alquran ne yéen yéenay ngeen gi xeet yàllaa leen tànn génne leen ci biir xeet yi li ko waral mooy taamuruuna bil maaruf da ngeen di digle lu baax wa tanhawna anil munkar da ngeen di tere lu bon waaye wa tuminuuna billahi dafa fekk ngeen gëm yàlla ixwatal iman yal na yàlla delloo siwaat bisu tabaski sunu kaw fekk bu mu koy delloo si mu ngi fekk ñu ngi libéré Palestine ñu ngi nangu masjidul aqsa ci loxoy yahud ñooñu nga xam ne ñooy noonu yàlla démb ak tey mbokk yi yal na yàlla delloo si waat tabaski sunu kaw waaye fekk alamul islam yi ñëpp a ngi yeewu fekk julil ñëpp yeewu nañ julil ñëpp toxuñu nañ julil ñëpp fattar nañu lañ li fatt seen nopp ba munuñoo dégg laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah أحبابي عذرا لهذه المقدمة الطويلة والآن أحدثكم فيما أردت الحديث عنه عيد الأضحى دروس مستفادة ñoo ngi jéggalu ci introduction bu gudd boobu li ñu tax a jóg ñu koy fàttali sunu bopp di leen ko fàttali mooy feetu tabaski ak ay njàngaleem yamurru alayna iidul adha كل عام فهل سأل أحدنا لما شرع الله لنا هذا العيد وما هي الدروس المستفادة والعبرة من قصة الفداء التي كرم الله لنبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل عليه السلام وجعلها ذكرى عيدا لهذه الأمة العظيمة ومما نتعلم من قصة الفداء ما يلي بقي genn wàll gi ci ñun ñëpp ba ñu juddoo ba léegi yàlla dimbali leen ñu nekk julit ñoo ngi feetu tabaski at bu nekk tabaski teru daal di jàll waaye kenn ku nekk ci ñun du laaj boppam waaw tabaski man lan laa ciy jëlee lu ëpp ci ñun tabaski liñ ciy jëlee rek mooy yàpp moo tax xar mu ngand la ñuy xool béjjéen yu rëy lupp yu duuf kese foq naag foqul au lieu que ñu jàngat tabaski yan leçon lañ ciy jële yan waar lañ ciy jële lan moo tax yàlla santaane ko lan moo tax yonent bi sunnaal ko déedéet ñun daal tabaski ñëw na jàll na préparation tabaski mi ngi mel ne préparation dee ci Sénégal noonu la méttee ni nit di xamee ne day dee mu koy préparé di xëccug sukuraat noonu la waa Sénégal di préparé tabaski kenn ci ñoom du ci jàngat dara tabaski day ñëw ba dem soo jëloon micro nga dugg ci kër borom kër gu nekk nga ne ko asalaamu aleykum loo jëlee ci tabaski danaan jënd naa xar xottil naa samay doom rey naa ko lakk nañ lekk nañ alhamdulillah fekk tabaski weesu na foofu ixwatal iman ñun ñëpp lu ñu war a jëlee ci tabaski tomb bu njëkk mooy wujubul istislaami li amrillah li war ci ñun mooy ñu jébbulu jébbulul yàlla maal asaf baat boobu dafa yàqu ci Sénégal jébbulu saa yoo ko déggee rek jëmul ci yàlla léeg-léeg nga dégg ñu ne jébbulu moo wóor waaye ci kan al istislaamu lillah jébbulu ci yàlla limaza ibrahim ibrahima yàlla da koo woo sant ko loo xam ne moog waa këram ñoom ñépp dañoo jébbulu nangu mbir mi فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين borom bi nee na fa lamma aslama ñoom ñaar ba ñu jébbuloo Ibrahima woon na doom bi kañ la Ibrahima am doom ci juróom-ñetti fukki at kañ la ko yàlla wax rey ko bu doon bi mu nekkee liir loolu day yomb parce que fii da ngay gis ku jur liir xoj ku jur liir ubbi foos dugal ku jur liir dugal ci mbuus takk parce que day yomb waaye doom ju dem ba am 40 ans soo ko nee xëyal ci tool bi mu xëy bu wàccee nga kontaan soo ko nee demal ubbi atelier bi bu ñëwaatee nga kontaan soo ko nee demal bureau ba bu ñëwaatee nga kontaan soo ko nee yóbbul nag yi bu ñëwaatee nga kontaan bu fekkoon ne ilimaan moo tardé ñu ne ko demal ci kanam buñ jullee ba pare sëlmal ñëpp kontaan xale bu tol noonu nga xam ne tol na fu ko ñëpp bëggee yàlla subhaanahu wa taala xam na ne ibrahim bëgg na doom bi xam na ne yaay ji bëgg na doom bi waaye mu ne ibrahima reyal doom bi rey ko inni ara fil manaam anni asbahuka doom man de yàlla wan na ma ci gént ne dama la war a rey ndeysaan moo tax ñun ñëpp foog ñu préparer suñuy doom benn waaye daf ma woo aljuma ji passé comme aljuma tey tey la am une semaine ku nekkoon Sénégal la am fi ay jafe-jafe génn daw waaye parce que ci lu bon la nekkoon ci biir wax mu may ñaanal muy ñaan yàlla muy ñaan jullit yi ñaanal ko pour mu génn ci li mu nekk parce que dem na ba foo xam ne jox nañ ko passeport américain passeport américain ya koy garder. waaye ci lu bon la nekk xam na ne lii amul mujj bëgg na cee génn muy ñaan nañ ko ñaanal waaye ci biir waxam da ngay dégg li ko dugal ci kàmb bu bon boobu ci mbirum góor jigéen mooy yaayam ak baayam Ibrahima nag loolu dalu ko bi mu amee doom dafa waajal doom ji préparé ko ba keroog bi mu woowee doom ji ne ko yàlla nee na naa la rey lan la doom ji tontu yaa abatif al ma tuumar bàyyi defal li la yàlla sant da ko préparé est-ce que ñun ñi waajal nañ suñuy doom ba bu ñu leen waxee nangam yàlla nee na ñu nangu est-ce que préparé nga sa doom ba boo ko nee kenn du kiris karas tubéyam góor du kiris karas mu ne la wa wax nga dëgg jaa di yëkkati tubéy ji tàkk ci kaw tey ku wax ci ñun loolu sa doom daan la mais c'est pas grave hein amul problème grawul papa parce que préparé wuloo ko Ibrahima dafa waaj kon tabaski dañ ciy jàng lu njëkk mooy istislaam lillah mooy nangul yàlla est-ce que ñun nangul nanu yàlla loolu mooy sunu wax est-ce que bu nu yàlla santoon tey comme li mu sant Ibrahim mbokk yi ñun ak sunuy doom ak sunu waa kër est-ce que pare nan ixwatal iman keroog ba Ibrahima nangoo soxnaam nangu doom ji nangu mu tëral doom ji yàlla mu ne wa naadaynaahu an ya Ibrahim qad sadaqta ruya inna kazalik najzi lmuxsinin wa inna hada la huwa albalaau lmubin est-ce que mbirum tabaski da ngeen yaakaar ne Ibrahima rek la wala doom ji kese la wala yaay ji kese rek la yàlla di fay déedéet inna kazalika najzi almuxsinin ku jaar fi Ibrahima jaar rek nga tabaski ngir yàlla tabaski woo ngir nit yi sunu borom subhanahu wa taala nee na ni ma faye woon Ibrahima laa lay fayee ixwaani ñoom ñaar ñëpp a jébbulu baay ji daa jébbulu rey doom ji doom ji jébbulu ñu rey ko est-ce que ñun waaj nañ loolu ñaareel mooy rahmatullahi li ñuy jëlee ci tabaski mooy rahmatullahi bi ibadihi yàlla moo nu gën a yërëm léeg-léeg ci Sénégal nga ne yàlla nee na yonent nee na ñu ne seen diina bi dafa tàng li kenn mënu ko dund et puis charia c'est barbarie dafa catastrophe rey nit dagg loxo nangam nangam yàlla rahmatullahi bi ibadihi yàlla def nu yërëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa séen jigéen juy nàmpal doomam mu ne sahaaba yi ndaw si suñ ko ne woon jëlal sa doom ji dugal ci safara si ndax dina ko dugal mu ne sahaaba yi ne abadan yonent yàlla muhammad ne leen yàlla moo gën a yërëm yaay ji ak doom ji bu leen fàtte ne yàlla moo may yaay ji doom ji waaye xoolal ibrahim tëral doomam keroog bu muy tëral doom ji doom ñi naan ko papa lenn rek laa la ñaan mooy jëlal sama yére takkal ci samay bët pour balaa ma lay xool nga may xool sunu bët di ñeent nga may yërëm di bañ a def santaane yàlla takkal sama bët waaye rahmatullahi bi ibadihi yàlla dafa yërëm jaam ñi fa lamma alima bi sidqi nabi ibrahim wa taati nabiyihi bi yàlla xamee ne yonentam bi ibrahim ak doomam nangul nañ ko moom yàlla lan la yàlla def wa fadaynaahu bi zabhin azim yàlla nee na ma jot ko ma jël xale bi sauvé ko daal leen di indil kuy mu rëy daal leen koy jox kuy moom mooy symbole tey ñun ñoom ñu war a taxaw kenn ku nekk génn ko ci sa alal doo ko def ngir doom yi doo ko def ngir soxna si doo ko def ngir dëkkandoo yi nga def ko ngir yàlla xoolal tey toll nañ ci Sénégal foo xam ne bu nit di jëndi tabaski day nekk ci kanam doom yi nekk ci kanamu oto bi soxna si nekk ci ginnaaw ñoom groupe googu yëpp ñu nekk ñett ñu wàcc daral xale yi dañuy tànn soxna si day tànn jëkkër ji day tànn léeg-léeg xale yi ne papa là-bas au fond au derrière jabar ji ne non ku nekk di wax di tànn ba ñoom ñooy xool sax bi leen doy ñu doog a wax papa ji tracé mu doog a tracé ana yàlla ana yàlla ayna allah ci sunu tabaski yi waaye ixwatal iman xar moomu yàlla subhanahu wa taala jote ibrahim yàlla moo yónni jibril alayhi salaam allazi habata bihi jibril alayhi salaam li yaftadi li yaftadi allahu bihi nabiyahu ismail ya lahu min rabbin rahim wadud wa huna mbokk yi fii yëpp la ñun ñëpp war a jàngee ne yàlla mënu ëpp yërmande yàlla subhanahu wa taala bàyyiwul ñu rey xale bi yàlla da doon testé ibrahim rek wa isibtala ibrahima rabbuhu bi kalimat fa atammahunna yàlla yàlla nee na bi ma nattoo ibrahim ibrahima matal baat yooyu moo tax yàlla ne ko inni jailuka linnaasi imaaman moo tax ma tànn la tey nga nekk imaamu ñëpp yàlla yemul ci loolu bi mu xamee ne ibrahim sës na su jàkkaarloo woon ak yàlla direct imaan bi sës na dootul yokk subhanahu wa taala sunu borom ne wattaxaza allahu ibrahima xalilan bi yàlla xamee ne kii gëm na ko dëgg amatul frontière yàlla nee na ma jël ibrahima mu nekk sama xalit wattaxaza allahu ibrahima xalil sunu borom subhanahu wa taala takkal ko garaat bu rëy boo demee septième asamaan ibrahima ngeen fay fekk muy yar xale jullit yi faatu yi sunu borom di ñu wax ba tey lu ñuy jëlee ci tabaski ginnaaw ñaareel ñetteel mooy qudratullahi allati la tuhadduha hudud kattanu yàlla mbokk yi amul frontière ku am kattan yàlla moo la ëpp kattan fawqa kullu qudratin qudratullah loolu bu leeree ci suñu bopp dootuñu dootuñu gëm leneen dootuñu gëm ay yax dootuñu gëm ay garab dootuñu gëm ndox dootuñu gëm jant dootuñu gëm géej dootuñu gëm nit yàlla rek la ñuy gëm xoola Sénégal fi ñu toll dara taxul pas-pas yi ñoo yàqu gëmu ne gëmuñu ne yàlla moo ëpp ñépp kattan sénégalais gëmul lool foog yàlla ak léeg-léeg sax nga dégg ñu ne yàlla kese kese dafa ri tax foog rek yàlla ak su jullit tolloo ci yàlla ak amatul njëriñ su jullit gëmul ne fawqa kulli qudratin qudratullah fallahu lahu alqudra almutlaq wa amruhu بين الكاف والنون إنما أمرنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون yàlla ay mbiram lu mu namm du question muy dajale ay nangam ak nangam déedéet sunu borom subhanahu wa taala su nee na am mu am xoolal kuy mi bi yàlla ne Jibril wàccal kuy mi rek kenn rendiwul Ismaïl kon yàlla moo ëpp ñëpp kattan loolu jullit daf ko war a gëm sahaaba yi ba ñu gëmee loolu islamisé nañ monde bi ci fan yu néew yonente sallallahu alayhi wa sallam génnul àdduna lu dul drapeau laa ilaha illallah samp na ci golf bi parce que dañoo gëm ne yàlla moo ëpp ñëpp doole allahu akbar baat boobu chaque jour ñu koy wax aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafur rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني في الله lu ñuy jëlee ci tabaski ñett ñeenteelu tomb mooy ru'yatul anbiya xaq yonent yi lu ñu gént dëgg la loolu xadis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko feddali baay ibrahim keroog ba mu géntee dafa woo doom ji ne ko gént naa dama la war a rey doom ji ne ko defal li la yàlla sant juróomeel mooy taazimu amrillah màggal santaane yàlla ibrahima ba mu déggee ba mu gisee ne yàlla nee na rayal sa doom ibrahima hésité wul mooy dafa màggal yàlla yàlla rek moo nekk ci xolam amul dengi dengiwul sikki sàkkawul ñun fan lañ toll ci màggal yàlla est ce que yàlla moo nu gënal sunu bopp est ce que yàlla moo nu gënal sunu waa kër sunuy doom sunuy soxna est ce que yàlla moo nu gënal sunuy kilifa yàlla ibrahima moom yàllaa ko gënal lépp lu mu am moom loo gis ngeen ba mu amee gan togg ba mu ñor ne gan gi bismillah gan gi ne ko man du ma lekk ci bismillah lu tax mu ne ko gëmuma ko mu ne ko kon doo ko lekk jógal ci biti parce que ibrahim yàlla rek la gëm ibrahima yàlla rek subhanahu wa taala la màggal lam yataraddar sayduna ibrahim walam yow yufakkir ibnahu xalaatul doom xoolal doom ni mu neexee doom ni mu neexee xalaatul doom xalaatul jabar su ma rendee doom ji ba pare su ma ñibbee kër gi est-ce que sama sëy du tas su ma rendee kii benn doom bi laa am est-ce que dinaa amaat est-ce que yàlla moo santaane yàlla bu soxlaa ñëpp dañoo war a ñàkk juróom-benneel ci li ñu war a jëlee ci tabaski mooy wujubu taatullah ibni li abihi maa lam yamurhu bil maasiya doom dafa war a topp ndigal baayam feeg baay digalu ko mooy yàlla innama taatu fi lmaaruf la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq képp ku ñuy topp na fekk li ngay santaane dafa dëppoog yàlla nee na yonent nee na bàyyi kenn amul droit mu ne doom defal doom di déngi déngi nañu xam ne yéen doom yi na ngeen xam ne da ngeen a war a topp seeni bàyyi loolu tey dafa réer ci réew mi doom yuy topp bàyyi tey paa boo fekk minuit mu taxaw ci buntu kër gi soo ko nee loo fii def mu ne la moodu moo mandi wala ngañ moo mandi wala demma mandi mu ngi ci biir yor yat nee na bu ma duggee mu rey ma xale bu jigéen mère boo fekk mu taxaw ci bunt bi soo ko nee lan la mu ne la ndey mu tëb fenêtre moom laay xaar ba mu tëdd si tey jamono tiital sa baay lañ toll waaw léeg-léeg nga dégg benn xale bu góor mu naan dama nee tat wax paa bi raay tat laay def wax ko raay yow bi nga nee cocc munoo wax raay boo nee tat est ce que di nga wax raay nanu ragal yàlla ñu xam ne dañuy jëlee ci tabaski doom dafa war a topp baayam feeg bàyyi digalu ko bokkaale feeg bàyyi digalu ko mu mooy yàlla subhanahu wa taala tey nag sunu diine mooy boo amee doom muy jaamu yàlla nga tere ko soo amee doom muy mooy yàlla gis nga moo tax ñii woote ñi dañuy fëkk xale yi rek parce que xale yi amuñu lu ñu leen dugal waaw ñi ay yàlla yàlla lañ ñii dañuy tëgg di fecc ñii di yëngatu gis ngeen barki démb li xew Dakar ay xale ñoo dugg Dakar rajaxe alalu jàmbur yëpp c'est parce que pourquoi déggaluñu seeni ndey ak seeni baay. xale bu amul kilifa nag boroom xam-xam yi nee nañ jinne mooy mujj a nekk sa kilifa juróom-benneel juróom-ñaareel ci li ñuy jëlee ci tabaski mbokk yi mooy takrimullah li ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa teral xeetu muhammad xeet yëpp jaar nañ fi yàlla bàyyi ba muhammad ñëw ak xeetam yàlla terale leen tabaski gis nga dañu laaj boroom xam-xam yi ban jour mooy feet ci yow benn boroom xam-xam ban jour mooy feet ci yow mu ne bis bu ma xëy moyu ma yàlla rek bis boobu feet la ci man bis boo xëy moyoo yàlla waaye xoolal ñun tey léegi léegi fi may wax ak yéen stade bi préparé nañ ko pour guddi dañoo war a moy yàlla est-ce que est-ce que stade bi kese la partout tey ci stade yi ci biir Sénégal partout tey ci dancing yi ci boîte de nuit yi xale yu góor yi xale yu jigéen ñoom ñëpp ñu ngi ni solu toog juma ne guuf waaye fii ak 30 minutes. dootoo xàmme ñi demoon jumaa ñii ñooy ñan koo ci dajeel da nga koy wax Jean wala treize wala Émilie da nga yaakaar ne ñii duñu ay jullit est-ce que loolu diine la buñ ne tabaski ñëpp sol seen yére yu weex ñëw toog ku dem seen kër ndeysaan baal naa le baax bu guddee nga bàyyi sa doom bu jigéen ak sa doom bu góor mu dem di njaaloo ji nanu ragal yàlla keroog bi aaya wàccee borom bi subhanahu wa taala mu ne yonent qu anfusakum wa ahlikum naaran ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen ñi gëm yàlla musal leen seen bopp safara musal seen njaboot dafa am sahaaba boo xam ne foofu la toog di jooy ay fan ay fan ku ko laaj looy jooy du la tontu bañ dem wax ko yonent yàlla muhammad yonent bi woolu ko ne ko dégg naa bi aaya bi wàccee ba léegi yaa ngi jooy looy jooy mu ne ko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli man munumaa dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw loolu moo tax du ma dugg àjjana xool kooku ni mu tiitee bay jooy ñun kenn ci ñun tiitul suñu doom yi dañuy sol col gu bon di dem fu bon di jëf-jëf yu bon te kenn ci ñun du mer dara kubéeru ndaali sax du yëngatu te pourtant ku ñu toggalul sa kër tey jii tabaski baa ngi nii ku ci toog ba deux heures añoo sax da ngay créer soxna si tey kenn ci ñun bi mu jëndee yére wala bi mu fóotee yërëm mu ñëw fekk yére bi fóotuñu ko sax wala passé wuñ ko yaakaar naa ne balaa ngaa daan julli si tàngal nga kër gi waaye tey ñun déedéet kooku lan la ko yenentu wax wa hasbuka an taamuruhum bima taamuru bihi nafsak wa tanhaahum amma tanha an nafsik doy na ci yow li ngay def ci lu baax nga sant ko waa kër gi lu bon li ngay def nga sori ko ixwatal iman juróom-ñeenteel juróom-ñetteel mooy ar rahmatu bil fuqara war nañu yërëm ci bis bi ñu ñàkk ñi waruñu rey suñuy xar rek dugg suñuy biir kër tëj suñuy bundu kër ñu nag suñuy njaboot ñu romb suñuy mbokk yoo xam ne leer nañu ne ñii amuñu tey lu ñu añee war nañu dépassé foofu yonti boo xam ne abazar yaa abazar yow abazar boo toggatee sa cin bëril ñeex mi bu yàpp bi bëriwul sax nga tànk ci ñeex mi teg ci mburu jox sa dëkkandoo fan lañ toll ci loolu tey ndeke kuy mi ñetti xaaj lañ koy xaaj sulus lil akl sulus lil hadiy sulus lil sadaqa loolu mooy xaru tabaski genn wàll saraxe genn wàll lekk genn wàll maye kado waaw dindi ci jox say mbokk ñetti genn wàll yi la ñuy def xaru tabaski waaye am na ñoo xam ne dañ naan béjjén yi sax bu ñu leen ko tuuri bu leen ko tuuri dugal leen fii ci biir frigo bi loolu du diine bokkul ci lislaam mbokk julit yi juróom-ñeenteel mooy azamatu diin azamatu diin l islaam diine lislaam moo gën a màgg ci diine yi diine ji mooy diine ji nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ñu ko baaxee yaalamu ala yaalamu man xalaq wa huwa latifu lxabir shara allahu hada al iid tawxidan lissufuufi almuslimin wa jamciha mbokk yi yàlla subhanahu wa taala jox nañu diine ji jox ñu feet bi pour julli di seen sàppe nekk benn ñun ñëpp war nañoo yokk suñuy ñaan yokk suñu góorgóorlu parce que yàlla dimbali na alamul islami monde bi yëpp tey lañ julli waa Sénégal dañ doon wax ne munuñu ànd ak waa Màkka loolu de dajjeeku na tey loolu de tey dajjeeku na mbokk yi munu ànd ak waa Màkka parce que Màkka nangam nangam ah tey nag maak waa maakaa ngay julli de ñun ñu ngi nii di julli xanaa kon ñun julli wun tey alxaqu yaalu wala yula alayhi alxaqu yaalu wala yula alayhi waa maakaa nga nee di julli ñun ñu ngi nii di julli kon loolu muy wane li ñu nekkee fi ay caaxaan la képp ku fi màkka nekkati di julli nga nekk fii di def ay caaxaan na nga yëg ne sa jaamu yàlla yàlla nangu ko bis bi tey bi leeral na lépp yal nan yàlla woon dëgg allahuma hayyi li hada al umma amran rachada yaizu fihi ahla taatih ويذل فيه أهل معصيتك اللهم يسر لحجاج حجهم وأصلح للمسلمين كل أمرهم وانصرهم على آدائك وآدائهم اللهم أهلك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم وشيعيين ومن شايعهم اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالقبر ñu ngi leen di ziara bu baax a baax di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla nangul nangul leen wa kullu amin wa antum bi xayr incha allah ngeen néggandiku ba imaam rey baax a baax.